nga xam ne président Sall am na ko ak euh, xaalis noonu la ko mën tuddee maanaam social bi dimbali mm-hmm. néegi doole ji euh, tant que ça passe par les voies légales amul problème comme li ñu la dénk mm-hmm. mais souvent euh, dañuy dénoncer yenn pratique yoo xam ne xëy na ça sort un peu des voies yi ñu tàmmal la maanaam à Sédhiou par exemple on a vu le président distribuer de l'argent ci otoom ay population déjà loolu daf def na xaw na nëbb tuuti solos ndaje bi nga xam ne amoon na fa parce que les gens l'ont partagé ñenn ñi di ko dénoncer. c'est que euh, niñ ko interprété la. Mhm. mais distribuer de l'argent mosuloo gis président de la République distribuer mais su cortège am di dem ay xale taxaw am ñun def xolam xolam mu xam ni kii xale bi dafa am problème mu am humilité ne arrêté convoi bi déjà loolu c'est à saluer am humilité ne ne am humilité woo xale bi pour xale bi xale bi wax ko lan la xale bi ne yaayam def feebar. Hmm, c'était ça. c'était ça loolu nit ñi dañ ko war a saluer parce que on a besoin de de d'hommes et de femmes ñoo xam dañu am humilité ñuy xam ni dañuy déglu même xale bu ndaw bi su amee problème nga kooku bu. taxawul woon est-ce que dolliwu ko problème dans la mesure mais les conséquences après. mais amul bala muy am est-ce noonu la war Euh, nga nekk ci yoon ay oto di dem naka ngay amee si boo taxawulee naka ngay munee xam xale bi ban problème la am. Mm-hmm. est-ce que xale bi est-ce que soxla na appui ou pas il faut nga taxaw et puis il faut si nit ñi euh, ñu mun ñu ñu ñu ñu ñu comment dire démystifier affaire ay autorité ay. wàcce sa bopp. c'est important c'est important pour la première. fois ñu am mais l'argent du na loolu c'est un petit million c'est pas bëriwul ci moom